wala xawla wala quwata illa billahi al ali al azim te ñu ngi jàngal masu masaal jabirati ci bandaas jabira borom xam-xam yi dañoo nañ ko firé fii ci fiqul waade nam ko fire mooy la nga takk ci kaw gaañ-gaañ bi amma borom muqaddimatul aziya nam ko firé mooy garab gañ ci diw bokkut ak lañ ci takk lu mën a xew jullit sant nañ ko jàpp sant nañ ko sangu farat waaye bu yaram bi gaañoo buy jàpp dafay am beneen atte bu bokkute koo xam ne ni yaramam dafa wér lislaam dina sant cër cër yi ngay raxas am gaañ-gaañ mu ne la ci ndox gaañ-gaañ bu yokk kon boo gaañoo bëgg a jàpp walla nga gaañu ci yaram bëgg sangu nooy def moom lañuy ñuy jàng tey ma tënk dars bi ci mazhab Malik door a ñëw nag fii la wax fii mu gaaw ku gaañu ci mazhab Malik gaañ-gaañ bi benn mu nekk ci cëri njàpp yi nga xam ne cëri tiim yi daara laal ko wala mu nekk ci cëru tiim yi cëru tiim yi mooy kanam ak loxo bu dee foofu wér na waaye bopp daal moo gaañu wala ab tànk kooku am na àtteem bu dee nag kanam gi ak loxo yi dafa am gaañ-gaañ kooku am na àtteem boppam kon ñaar yi koy jàpp gaañ-gaañ fan la nekk ngay ko xool ndax kanam gi ak loxo yi ma ne waaw cëri tiim yi dara bopp bi moo gaañu wala tànk ba kooku am na àtteem wala bu dee gaañ-gaañ bi si jëru tiim yi la nekk mooy loxo ba mooy kanam ga wala loxo ya soo bàyyi am naa tëbb xob kon loolu lañ ci déggee lu mën a xew daal gaañu rek bu mu tax nga gaaw dem tiim xam ñoo xam ne bu seen cër yi gaañoo rek dañuy ña ñu mën ñoo jàpp ñu dem tiim demeewul moom soo gaañoo ci cëri tiim yi foofu benn wax la am benn wax mooy kanam walla loxo fofu ci japp na ci tim la budé fofu foofu nga gaañ mësëb maalik da bu budé man nga ko raxas ta ga ta du la yokk feebar du la indil yéex a wér du la indil benn problème ni ki xusi ko xuseeku ko bu tuti dang koy raxas boy japp nga japp normal ya mo problème bu boko boo nak man na la andil jafe jafe ni ki nga yéex wala sa febar yok wala yeneen feebar sax juddoo ci su boobaa Malick def naan la da ngay jàpp ba foofu nga masaa ko bàyyil xel de nit ki loxo ba moo gaañ maa ngi ci cëri ci moo gaañ da ngay jàpp boo yemee ñëwee ba ci loxo bi nga laal ndox bàyyi ndox mi ba mu jeex tàkk masaa mooy sa loxo bi bu mu laal bu bu ci def ndox na tooy rek nga raayale ko ci kaw gaañ-gaañ bi kon boo gaañoo mënoo koo raxas waaye mën nga koo masaa dangay ngay jàpp ba foofu nga masaa ko continuer sa njàpp masaa mooy sa loxo bi na tooy bu mu téye ndox ndax gaañ-gaañ boo si defee ndox mën naa loru tooy tooy loxo boobu da ngay raale raay raay ci kaw bu dee loolu mën naa nekk te doo gaañ bu dee boo ko masaayee am problème maarig ne la nga diw ko masaa ci kaw diw bi loolu mooy jabiira bu dee boo ko diwee massa ci kaw diw bi sax da nga am problème maa yi nga takk ko massa ci kaw bandage bi xanaa kay loolu da ko man yaa ngi dégg de su fekkee nag mënoo koo takk massa ci kaw bandage bi te cëru tiim la maa yi nga jàpp ba foofu nga tëb ko raxas li wér foofu nga ko dem julli ci kon lii mooy att bi cëru tiim moo gaañu muy kanam gaa wala loxo ya yaa ngi jàpp mën nga koo raxas jàppul normal yow moom problème boo ko raxasee mu andil la lor da ngay masaa ci kawam mooy da nga koy raay ak tooy tooy loxo bi mais doo ci def ndox bu dee boo masaa ci kawam direct am problème mu ne la diw ko nga masaa ci kaw diw bi loolu mënu nekk takk ko même boo boo takkaalee fu bokkul sax dara si waaye nag da nga fexe bu dee foo mën a ñàkk takkaale bu ko takkaale waaye fi nga xam ne mënoo koo ñàkk takkaale boo ko takkaale da ngay masaa ci kaw bandage bi rek kooku dara nekku si boo mënul masaa ci kaw bandage bi nag nga jàpp ba foofu nga tëb ko maanaam nga raxas li wér bàyyi li feebar jàpp jàpp lu mànk loolu mooy àtte bi bu dee gaañ gaañ bi ci cëru tiim la mooy kanam wala loxo yaa ngi dégg benn àtte bu laa gaañ gaañ bi ci kër cëru tiim la kanam ak loxo mu at ko da ngay jàpp ba foofu raxas ko bu dee mën nga koo raxas mënoo ko. nga masaa ko wax naa la mooy masaa direct mënoo ko nga diw ko masaa ko mënoo ko nga takk ko masaa ko mënoo ko nag nga jàpp ba foofu nga tëb ko nga raxas li wér bàyyi fi gaañ bu fekkee ne boo raxasee fi wér bàyyi fi gaañ nag ba léegi da lay andi lor nga dem tiimi waaw moom bu fekkee boo raxasee fi wér bàyyi fi gaañ sax loolu dana andi feebar nga dem tiimi loolu mooy. mooy atte bi dégg foofu sax tëb naa fa dara maa ngi jégalu maanaam gaañ-gaañ bu dee cëru tiim la dama faa tëb dara danga koy raxas mënoo ko nga masaa ca mënoo ko nga diw ko masaa mënoo ko nga takk ko masaa mënoo loolu nga takk ko masaa ko suuf waaw parce que cëru tiim la boo ko mënul masaa ndox da ngay jël suuf nga wowal sa ba mu wow nga laal suuf mhm. masaa ko ci xam nga xanaa suuf nag boo ko ni masaa nii loolu xanaa war na ma lekk li des nga raxas ko boo ko mënul masaa suuf nag moom nga jàpp ba foofu nga tëb ko moom laa tëb bu dee gàncax bi cëru tiim ndox ci benn anam na nga ko suuf boo mënul loolu nag nga bu dee nag boo raxasee fi wér fi gaañu day yokk wala moo ni la yeneen problème nga bàyyi ko dem tiim loolu mooy atte bi booy tiim li nga mën a masaa rek ngay masa léegi nag gaañ-gaañ bi bu dee nekkut ci cëru tiim yi ci jëri jàpp yi maanaam kanam ga dara nekkut ci loxo ya dara nekkut ci bopp bi moo gaañu wala tànk ba su bi am na ñeenti wax ngirëm Malik bàyyi bu fekkee ci bopp la wala tànk cëru tiim yi dara nekkut cëri jàpp yi rek moo am gaañ maanaam bopp wala tànk ñeent wax ci am la ma njëkk a wax nag faw nga def mooy boo ko mënee raxas da nga koy dem jàpp amoo problème boo ko mënul nga masaa ko direct boo ko mënul nga diw ko masaa ci kaw diw ba boo ko mënul nga takk ko bandaas ko masaa ci kaw bandaas ba boo mënul loolu doo ko masaa ak suuf parce que foofu cëriñ jàpp la kenn du ko tiimal boo mënul nag masaa ci kaw bandaas ba nag mu am ñeenti wax waaye euh, ñett yi moom boo ci man danga koy def raxas masaa ci kaw diw ba masaa direct masaa ci kaw diw ba masaa ci kaw bàndaas bi ñeent yooyu boo ci mën na koy boo mënul nag masaa ci kaw bàndaas ba doo ko masaa suuf parce que foofu du cëru tiim waaye foofu mu am ñeent wax benn bi mooy jàppal ba fi gaañu nga tëb ko loolu mooy benn wax ji dangay jàpp ba fi gaañu nga tëb ko ñu ne déedéet japp japp lu manki dem tiima ko gën comme que yow ci cëru tiim dara neeku ci bul japp da ngay tim julli loolu may ñaarelu wax ji ñi ne déedéet dañu xor ñen ñi dañu tekkali bu dee cëriñ jàpp yi la ci gaañu dafa bëri niki ki bopp bi moo gaañu ak benn tànk bi benn tànk rek res ah nga dem tiim moo gën ngay jàpp di tëb bopp ak benn tànk bi xas benn tànk bu dee ne li gaañu bëriwul ni ki benn baaraam rek moo gaañu wala benn tànk suuba nga jàpp tëb fi gaañu loolu mooy ñetteel wax ci wax ju njëkk ji mooy cëri njàpp yi moo gaañu mënoo koo raxas mënoo koo masaa direct mënoo masaa ci kaw diw bi mënoo masaa ci kaw bandaas bi boroom xam-xam yi maaliki yi ñii ne comme que cëri tiim yi dara nekkul si demal tiim julli bàyyi njàpp rek ñu ne déedéet da ngay jàpp ba fi gaañu nga tëb ko ndax loolu moo gën hmm. mooy da ngay jàpp jàpp lu manqué ñu ne déedéet dangay teqale bu fekkee cëri njàpp yi la ci gaañu dafa bëri nga dem tiim parce que yow mën ngaa tiim amul benn problème bu dee cëri njàpp yi nag la ca gaañu bëriwul nga jàpp ba foofu nga tëb ko ba ma ñetteel wax bi wax bi da ngay boole njàpp ak tiim boo ko daan si yonent bi nag loolu la jàngale fële ca wàllu sang ba da boole njàpp ak tiim mooy lan mooy jàppul ba fi gaañu nga tëb ko su paree nga tiim tiim lu mat sëkk door a souvent boole nga ñaar wax jooju nag moo gën a wóor te boo xoolee hadis bi ñu jàng léegi ci kanam ci wàllu sangu la waaye loolu la boole daf ne dégg nga maanaam mën naa sangu tëb fi gaañu su paree mu tiim julli waaw mu tiim julli kon gaañ gaañ bi de ci cër yi tiim la benn wax a ci am raxas ko boo ko mënee masaa ko direct boo ko mënee diw ko masaa ko takk ko masaa ko boo mënul loolu nga masaa ko suuf boo mënul nga jàpp bu foofu nga tëb ko bu dee cëri la benn wax jooju ci am jàpp bu foofu nga tëb bu dee cëri boo ko mënee boo ko mënul masaal direct boo ko mësul diw masaa boo ko mënul nga bandaas masaa boo mënul masaa euh, ba kaw bandaas nga bu ci laal suuf bu ko massa suuf ñeent waxee am ñu ne demal tiim julli yow sa cëri tiim yi dara nekku si ñu ne jàppul ba foofu kay nga tëb ko ndax amoo benn problème euh, am nga ngànt ci raxas foofu ñu ne déedéet bu dee li yi dafa bëri da ngay dem tiim rek julli bu dee li gaañu ci cëri njàpp yi bëriwul nag nga door a jàpp ba fi gaañu nga tëb ko ñeenteel ba nag mooy ne jàppul ba fi gaañu nga tëb ko ak lu mën a xew soo paree nga tiim julli boole ñaari boobu nag moo gën a wóor kon su ko defee lii muy atteeb njàppal ku gaañu yow nag bul def rek lu la rek nga dem tiim yi su boobaa da dëkk ci mooy yàlla aljabiratu jabira hiya moom maa da nga xam ne yurbot bu leen takkee bii ci moom aladu cër almajruhu buñ gaan ñii ne déedéet jabiratu mooy garab gën ci diw aw maa wala xam ne yu takk bii ci moom aladu cër almaksuuru buñ damm loolu mooy jabira fayda xaraja bu génnee fayda juriha buñ gaañee al insaanu doomu aadama aw asaabahu wala mu jot ko kasrun ak damm fii ahadi aadaihi ci benn ci cëram yi walam yaqdir te mënut al istimaalil maa yi si jëfandikoog ndox mi doomu aadama bu gaañoo wala mu damm te mënut laal ndox aw kaana wala mu nekk almaaw ndox mi yadduruhu di ko lor aw yu axiru wala muy yéexee shifaahu ak saafaraam aw yuxdisu wala muy sos la ñeel ko alaman ak métit ashadda bu tat fa lahu ñeel na ko an yem saxa mu masa alal juri ca faida kaana bu nekkee fain kaana bu nekkee almasu masaa gi ay den ba tey yadduruhu di ko lor xam nga masaa gi ma leen jàngaloon léegi mooy nekk noonu wax naa la façon yi ñu koy masaa yi bu dee masaa gi dana ko da koy lor falawu ñeel na ko aniyaasi ba mu bandaas maanaam mu takk alal jur yi ca gaañ-gaañ ba awil kasi wala damm damm ba xisaabatan ak bandaas su ma yem saw topp mu masaa alayha ci kaw bandaas boobu bi charte an laa jaawisa ci sarta mu bañ a romb ribaata bum nga muy takkee dana du wëccër almajruha buñ gaañ ba fexeel daal ba bul takk foo xam ne nii mën nga koo ñàkk takk illaa lu dorotu lu may ngir lor bu dee fii moom mën a koo ñàkk takk booy takk góom bi foo nga takkaale foofu ah, su boobaa boo ko takkaalee mën nga cee masaa dara nekku ci waaye boo takkaalee foo xam ne mën ngoo ñàkk takk rek boo ci masaa du baax wala si ne boobu waxtu waxtu mu ay noonu ñu ràññee rek tur bës danañ ko takk fii ci moom boo ko takkee daal mën nga saa yoo jàpp rek boo jeex na amul waxtu saa nga koo dindi ba li fi nekk mata juri saa yuñ ko gaañee jaasa dëgg na loo ñeel ko anjar bi tam mu takk alal jur yi ci gaañ-gaañ ba su ma yem soow mu masaal yi ci kaw gaañ-gaañ ba yi ci njàppam aw xas lii wala sangoom bu dee cëri sangu nga foofu moom mook cëri njàpp yu am dégg nga sa yaram bi moo am fu gaañu xam nga booy sangu yëpp nga war a raxas raxasal foofu boo ko mënul masaa ko boo ko mënul nga diw ko masaa ko boo ko mënul nga takk ko masaa ko boo ko mun nag doo ko laal suuf parce que sangu amul suuf mm-hmm. dégg su fekkee mënoo ko li ngay def mooy sangu ba foofu nga tëb ko dégg nga mm, daal di euh, dem julli ji dégg rek la mooy nga sangu ba foofu nga tëb ko soo paree nga tiim dem julli mm-hmm. waaw dégg waaye nag moom doo mën a tiim rek moom foofu moom bu wax wax tiim rek bañ a sangu sangu ba foofu tëb ko rek mooy nekk dem julli wala nga sangu foofu tëb ko tiib door julli te loolu mooy di gën waaye tiib moom kese moom du fa nekk moom dégg nga si wàll sangu dégg nga wala si nekku min a bokk ci lu lor alliance ba mu takk aljabirata gaañ gaañ wala taxalat bi ci laab waxuñ la boo gaañoo booy jàpp pour nga mën see masaa foog ko fekk yaa ngi laab déedéet même bu dee jàpp masaa ci rek bu dee ba nga koy takk da ngaa toj le mm-hmm. waxaa daal li humu asaxiwu mooy lu a wér wala gën a yomb wayil kaan dina nekk nag baaxul fuqaay ñeneen ci borom xam-xam fiq am nañu ne boo gaañoo masaa ci kaw bandaas bi il faut nga takk ko fekk yaa ngi làpp waaye loolu daal nekkul li gën a kii wa dalilul mas yi tegtalu masaa ala jabirati ci kaw bandaas tegtal bi mooy maa la nga xam ne waaw nett na ko jaabir radiyallaahu anhu yàlla ko yàlla gërëm am na rajulan ab góor asaabu jot na ko xajarun xeer fa sajjahu la fa sajjahu téere baa yàq mu xaañ ko fii ci ci boppam benn waaye ci jamono yonent bi dañoo génnoon saxaaba yi demoon ci benn ci seeni eh, xare yooyu rek benn waaye xeer gaañ ko xaañ ko ca bopp ba su maxtala ma mu gént fasaara mu laaj asaabahu saxaaba mi ne hal tajiduna ndax da ngeen xam lii ñeel ma ruxsatan ak yombal fi teemu mi ci tiim ndax gis ngeen ne mën naa tiim damaa gént war a sangu te damaa xaañu ci bopp man naa tiim julli wala boog damay sangu fa xaalo ñu ne ko fa xaalo ñu ne laa na jub duñ fekk lakk ñeel la ruxsatan ak yomb-yomb wante yow taqdiru wante su fekk yow taqdiru mën ngaa laal maay ci ndox ñu ne ko yow àttan nga laal kon mënoo tiim faxtasala mu sangu fa maata mu dee mu ne falamaa xadim naa bañ ñëwee àla rasulillah ci yonent yàlla bi salaa sallam xibaar ko bi zaalik ci loolu xaala def ne xatalu rey nañ ko xatalahum yàlla na leen xalak allahu yàlla maanaam du du ñaan ak toroxtaane waaye ñaan ak ku leen jiitu la ala saalu lu tee ñu laaj isaara ñaan na buñ xamut fa innama shifaa yi naka safaanam réer ay aljaalu réer aswaalu mooy laaj naka saafaraak réer kon aljaalu aswaalu mooy laaj wa innama yeg fii naka dana ko doy wa innama kaana naka nekk na yeg fii di ko doy an yette yemmama mu tiit wa mu takk ay yans aw aw yaasibu wala mu takk kii nekk na xadis bi moo xam lan la wax alaa juuhi ca gaañ-gaañ ba su ma yem soo mu masaali ci kawam wa yaxilu mu sang saa gis bi mboole ko yoonu dafa boole sang ak tiit waroon daal mu takk fi gaañu dégg nga ci kawam loolu mooy bu ko mënee masa raxas li des dem tiim moom dafa boole diggante sangu ba pare tiim julli loola waral ci wàllu jàpp tamit nga boole jàpp bu dee mënoo ko ci seen jàpp yi la nga jàpp ba pare dem tiim julli lu gën lay lay doon dégg comme que cëri tiim yi dara nekkul si yoonu def sangu rek si gaañu mu takk ko masaa su paree mu dem tiim julli waaw waaw waaye nag moom tiim gi njëkk tudd ci hadis bi su boobaa dafay dëggal ma dafa bon fii wax ne tiim mën naa yàgg mën naa am na njëkk tudd gi tekkul ni moom nga njëkk def danaa war a sangu fay door a tiimit su boobaa dana dëggal masaay yi ñu wax ne moom tiim bi mënul yàgg rawaa soob na ko Abu Daawuda masaa alal yi ca bandaas ba bi nasiha ci dindi ko min makaani yaa ca barabam sawaawul moo xam bari a wér na ak jurbu gànjaañ ma aw lam yebra wala wérul la nga takk boo ca di ca masaa bu woddee rek masaa goo yàqu na foo nga takkaat beneen masaa ci ko tey boo doon julli ba ca biir julli ga bandaas bi wadd julli ga yàqu na foo nga jëlaat benn du ja doo jàpp wàll da ngay ci kawam moo tëddee si julli ga maanaam julliwaat kon saa yu waddee rek masaa ga yàqu na moo xam wér na wala waaye bu wéree it nag la yàq na la waxee masaa ga yàqu na nag moo xam dafa wér ñee la masaa ga yàqu na soo bëggee njàpp la nga mujjee jàpp nga garde ko danga koy masaa si sensé bu dee dafa wadd ñu na boo bëggee garder njàpp la da nga koy da ngay tegaat beneen bandaas masaa si saas waaye buñ ne la masaa ga yàqu na nga bàyyi ko mu wadd la moom yàgg yaa ki am nga dagg njàpp la yeneen bàyyi loolu nga de njàpp mooy far yàqu yàqu naa xam nga ne boobu waaye nda isin jamono boobu yëjëb dana war ale si moom ay yoxey da mu baa mu uddoo njàppam min jëri din ci lu moom maratan waxaat beneen yoon waaye loolu mooy su fekkee daf ko yéex a masaat hmm, ci waaye bu ko gaa yi masawaat xam nga méngal wàllu dara nekku ci dégg loolu la téere Maliki yi jàngale wayab tuur dana yàq almasu masaa yi ko gaari comme noonu in bari a na aljuru gaañ ba gaañ-gaañ bu wéree la nga masaa woon comme que gaañu moo tax bu wéree yàqu na gaawal masawaat ci kaw gaawal raxas foofu directe pour sa njàpp mu baax bu wéree moom doo ko masawaat da nga koy raxas directe pour sa njàpp bu baax boo ko yéexee raxas njàpp ci boobu mooy yàqu Hmm? sawaaw moo xam ne sax dindi na aljabiratu gaañ-gaañ ma am saqatal wala dafa daanu mi makaariha a barabam aw salat wala mujj na kama yee comme moom bu wéree daal gaañ-gaañ euh, bandage bi moo daanu boxam wala moom moo ko dindi wala mu ngi fa dem góom bu wér na rek foo mu dindi ko raxas ko a mën a jaamu yàlla ci njàppam loolu bu ko raxasul du baax su fekkee rek daf koo dindi yéex koo kooku bàyyi na méngale moo ko doon jàpp parce que mu dagg ko ñëwee bu yàggee jàpp la si boobu mooy yàqu kon foo mu jàppaat moom nag ni mu waxee ci yax bi bu wéree daal wala bandaas bu wadd rek da ngay jàpp joxaat loolu la wax waaye euh, li li mag téere Maalik yi jàngale daal mooy daf koy raay noonu feneen masa naka masa kaana nekk na jaay san daaj yi dagan waxtaan kaana ci waxtu bi nga xam nekk na alon dubu cër wa ali lan daaj yi feebar nee nañ li taxoon ñu may la nga masa ci kaw mooy da ngaa feebaroon kon faysament bëri a bu wéree ak jurfu gaañ-gaañ ba kay zaara dañ na alon suñu ngant ba bu fekkee wér nga ngant la dañ na kon su boobaa raxas ko rek la ma def waaye doo ko mën a masa lii mooy àtteeb al masu alal jabirati su ko defee bu fekkee mën na yem foofu ñeem bu fekkee ñu dem ba ci tiim kon ba ci kon mbërëg ku ñàkk ñaari laab maanaam boo nekkee ci barab boo xam ne mënoo jàpp mënoo tiim nooy def mooy masala moo xam ne bu lislaam lépp meloon nii jàng amul solo ndax mooy masala moo xam ne loo tontu wér na bu masala yëpp meloon nii moom moom lu xew rek tontu lu la neex loo tontu wér na mënoo tiim mënoo jàpp loo wax noon la hmm? kon dangaa nekk ci barab boo xam ne ciment la lañ ko tabaxee wala ñu peinture ko xam nga kay mun see tiim mën ay xeer kese la moom mën nga ca tiit karo nag dangay xool karo yi bu fekkee xeer kese la bu ñett yetti mën nañ cee tiit amaa bu fekkee dañ cee rax beneen produit nag mën nañ cee tiit sa dépend yàlla rek xam man xaw ma karo yi fu mu jugee moo tax mais am na karo yoo xam ne xeer kese lañ koy yette ba mu rafet rek su boobaa loolu dañ ci mën a tiit bu fekkee peinture la wala ciment moom loolu beneen matière daf cee dugg lu leer na kon doo si mën a tiim boo nekkee barab boo xam ne mënoo tiim amoo ndox nooy def loo def baax na mu mu la wax ne man la muy ko ku amut maa ngi taw daw lu mu jàppoo minu ci moom aw yaxtas wala lu mu sangoo wala moo deen amut barab taaxiran bu laab yete yem moomu dana tiim minu ci moom benn kaane tamay mu nekk maxbuusan di kuñ tëj fi makaanin ci barab najisin bu sobe aw kaane wala mu nekk marbuutan di kuñ xeew xam nga mënu rëcc faal yu sali ndax day julli wa yàq di mu fay saa yu mënee laab loolu la Ibnu Qaasim wax aw yu àqir wala day asalaatu julli ba mën a laab mu door a julli loolu la ashab wax am yu julli wala yàq nii te du fay day julli rek te su mënee laab du fay loolu la ashab wax am tasqut wala day wàcc asalaatu julli ci moom falaa yu salli du julli wala yàq nii du fay loolu la Malick wax julli wàcc na ko Malick yu gën a yombal foofu Malick ma daan tàngal moo gën a yombal fii nee na julli wàcc na ko laa yu salli yàq nii du julli du fay kullu zaalik loolu lépp kat xiile wax nañ ko te mënoo tontu lu génn wax ji diw mënul tiim mënul jàpp bu fekkee gis ngeen beneen tontu bu bokkul ak ñeenti wax yi ngeen wax ma su paree waaye man gisuma ko mënul tiim mënul jàpp léegi benn nga ne julli wàcc na ko du julli te su ma nee jàpp sax du fay ñu ne loolu la maa lay wax nga wax safaanu loolu xam lu nekk safaanu ma hmm. day julli su ma nee jàpp mu fay ñu ne loolu la Ibnu Qaasim wax nee naa kooku du julli de parce que amul jàpp waaye nag saa yu mënee jàpp day fay ñu ne loolu la asbax wax nga wax safaan ba non non day julli rek parce que loolu la man soo amee jàpp yi du fay ñu ne loolu la ashab wax est que mën ngaa tontu lu génn li man de xaw ma lu génn li moo tax ma ne masala bi moom bu doon diine ji noonu la met jërul jàngi li ñu laaj waxal lu la neex waaye nag diine melu noonu. kullu zaalik loolu lépp kii la wax nañ ko wa kullun képp ku nekk xat ataa andi na bi nañ ci lay boo xam ne yaxtaja layeena bii ci moom borom xam-xam yàlla ñu dañ ñoo yombalal xam waaye waxuñ seen bànneexi bakkan nag la ñuy wax dafa am fuñ ko teg benn nga jot seen mad rek benn nga bañ koo jot loolu tekkuñ nag duñu rëcc daa kay léeg-léeg ñu jum jum boo xam ni sax ab xale sax mën na koo xam waaye nag kenn jotu leen hmm? kenn jotu leen waaw waaye léeg-léegi nag léeg-léegi nag léeg-léegi nag ay ay saqataat am naaru góor lu mu fas lu mu mën a mën a mën a daw léeg-léegi mu fa kastalu <laughs> kooku ñëpp lay dal waaw léegi-léegi sax ñoom ñi wax dala sax weddiwaat seen bopp mm-hmm. ah ndax alkamaalu lillahi wa li rasulihi ولقد نظم بننا أحد الفقهاء ولو أحد الفقهاء كان تبرم كم قمي هذه الأقوال يلو أربعة ينت في أبيات جاي بيت فقال مري إيه؟ وأنا ليش مذم مارك وأنك في من ويوم واجك وي مذم مارك ورن نتلي ما يمل ميجيك أمون ما عنده ولا ما أم سوف تيمه فأربعة الأقوال ينت وقت يحكينا نيوي نتلي مذهبا غير مين يصلي دي جلي ويقضي دي في loolu la ibnu qasim wax xatsa ma qaala mooy safaana la wax na ko maalikun maalik mooy du julli du fay wa asbax asbax ne yàq dii day xaar ba mën a laab fay wala adaaw day julli rek te du fay li ashaba ñeen ashab wa asbax ak ashab min fuqahaayil maalikee ñi ngi bokk si borom xam-xam yi maalik kon ngir mi lii la atte ci ko mënul jàpp mënoo tiim moom nag mu ne wal asaxu li gën a wér anna faaqida taxurayni naka ki ñàkk ñaari laab yi yu aqiru dafa yéexi asalaata julli nee na li gën a wér daal mooy waxi asbax ba yow mënoo jàpp mënoo tiim xaaral ba mën a jàpp wala nga mën a tiim door a julli nee na loolu moo gën a wér li xadisi usaamatu bnu umayr ndax xadisi usaama bnu umayr ne anna rasulullah ne ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam qaala wax na ne laa yaqbal du nangu allah yàlla sadaqatan sarax min xuluulin ci sàcc xulul mooy la nga lañ sàcc ca mbàng ma dem ca xare ba lañ jël ca alali xéeféer ya yow nga sàcc ci dara boo sa saraxee yàlla du ko nangu loolu nag bu ko tënk ci sàcc ci sa alalu xare ja rek maanaam yow da dangaa dóor mar client ba am ay milliards xam nga léegi am ko ne waaye nañ nañ kii rek nañ nañ si yàlla yàlla du nangu yow sant ñu jaamu yi ñu sant <laughs> waaw xaaral mu asaka alal joom moom waaye sàcc sàcc sàcc sàcc ba mu bëri hmm. ne ne yaa ngi joxe asaka yàlla ne bëgguma yaa ngi ci tabax jumaa déedéet yaa ngi ci jaamu yàlla loolu yàlla du ko nangu hmm. kon loolu point bu am important na ko dañu bàyyi xel am ñoo xam ne yaakaar nañ ne xaalis ni ñu ko mën a amee baax na suñ paree rek def lu baax yàlla far nangu leen loolu mooy jéem baab yàlla hmm. <laughs> boo ko gaa yi jéem baab yàlla yàlla kenn du ko baab <laughs> yàlla da am lu leew jaamu ko da ngay wut wut bu dagan soo paree def ko fu dagan mm-hmm. moo tax yow xiyaamati jaam du tegg ndëggoom ci kanam boromam lu mooy laaj nañ ko fan la jëlee alalam mm-hmm. ak ci lan la ko dépassé ñaari yëpp dañ koy bàyyi xel fan nga ko jële bu baaxut fi nga ko dépassé amul solo fan bu fi nga ko jëlee bu baaxee fan nga ko dugal ah yàlla yàlla may mucc mu doon ndeysaan bu ñuy dund alal la bëgg ndax lan ndax duñ du attan coonaay àdduna waaye walaa ñun dee ñàkk la ñu bëgg ndax lan ndax coonaay àllaaxira bi ñu alal di teg at nañ ko fii de ñu ñàkk ñi ñooy ñee ñu am ñi mais buñ demee fële ñu am ñi ñooy ñee ñu ñàkk ñi waaw ndax dañ ñàkk ñu oyof amuñ benn alal di ne rek la waaye imagine milliardaire bi dërëm bu nekk ñu bëgg ko laaj fu ñu ko jële ci jamono julli nam ji du ñoo xam ne bu la yàlla laajee foofu dinaa ko yàlla ubbi buntu safara yi rek man pare naa ndax dara baaxut ci léegi nag bu fekkee nit ki triant wut daf doon def lu xaraam nit ki liggéey bi muy liggéey moom la lislaam mayewut ba am ci alal ñu di ko fay alal ji mu xam nga waru koo delloo kenn daf ko liggéey nu muy def bu ci saraxee baaxul ndaa la ju bon la nu muy def ñu ne bu tuubee na jéem a taxallus min zalika al maal wala boog min tilka al amwaal na jéem a dañ ci alal jooju dem def ci lu baax jullit ñi jaamoo ko yàlla moom mu mucc nekkul ne da ngaa jël alli jàmbur boo jëlee alli jàmbur delloo moo la war jëloo alli jàmbur da nga liggéey liggéey bu xaram ñu jox la ci xaalis nga am ci lu bëri mhm. te fekk jullit nga bu dee am xéeféer nga boo duggee si islam baal nañ la ko mhm. te afallaahu ammaa salafa mhm. waaye ab jullit nga liggéey liggéey ba xaraam ba dajale ci alal ju bëri alal joo yëpp dajale ko nga dem tabax ci jumaa wala nga tabax ci école wala nga defar ci tali nit ñi di ci jaar def ci daal loo xam ne jaamu yàlla danañ ko jëriñoo nga set ci wecc yow daal di tuub yàlla mën na laa baal waaye boo ne loolu boo ne loolu dafa dafa yomb <laughs> ah. <laughs> fekk man oustaz ka li nga wax ka dafa yomb na oustaz moom loolu moom loolu ko def sama milliards yëpp moom mënu mu ko jël génn ci moom seen wet mel àllekkat rek moo dee yàlla tamit lu xew nga xam ne noonu la kon yàlla du nangu saraxam ku sàcc dégg nga loolu bàyyi leen ko xel wala salaatam du caageen julli bi xëy di taxawuñ ci lu laab julli te laaboo it yàlla neen du ko nangu kon kon boo laabut mënoo julli waaw moo julli. Ah. boo sukkandikoo ci hadiis bi kon li gën mooy nga xaar ba dégg am laab rek door a julli. Hmm? Hmm. ñeenti wax yi daal moo ci am nee na moom li gën mooy nga xaar ba am laab door a julli mooy waxi asbax bi moom la jàpp. Hmm. wallaahi laa moo gën a xam bi sawaa bi ci njub. su am na bu niroog moom xam ne yàlla dafa dogal ñuy liggéey ci tubaab yi wala demee noonu. Ah. nga xam ne ni ñu bëri ci ñoom. duñ leen may ñu mën a jaamu yàlla maanaam duñ mën a julli bu waxtu julli jotee ndax li borom borom liggéey bi du leen ko may buñ fa naree force ak julli ñàkk seen liggéey nan la def ndax dañuy bàyyi seen liggéey bu mënee nekk loolu lañu war a def bu mënee nekk nag mooy la mooy bu ñu amee beneen liggéey boo xam ne mën nañ see suturloo dañuy bàyyi liggéey boobu dem jàpp ci beneen liggéey bu dee it mënuñoo liggéey leneen loolu rek lañ xam ñooñu am nañ darurat ak lor dugg nañ ci buntab illaa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ñi nga xam ne dañ leen a ba wax loolu leen ñu ñaaw ci yonent a ci lislaam ñi nga xam ne dañ leen a la bëgg yàlla ne man loolu ki nga xam ne mu ngi ne ngeen ji waxtu julli ñu julli mu julli waaye ñu forcé ko ndax bu ko defee du am liggéey te doomu aadama na am jës dan laa yakuluna taama wa ma kaanu xaalidina comme que nag nga lekk foog nga liggéey léegi ñu aay la eh, julli su boobaa amoo benn bakkaar loolu moom jàpp naka ngay def ñaari xiyaar moo nekk sa kanam benn bi mooy li borom xam-xam yi wax ne kuy tukki mën naa wàññi julli mën naa boole julli kon julli tisbaar takkusaan kon bu dee tisbaar jot na nga war a liggéey julli tisbaar teg si takkusaan door dem sa sa bureau timis jot na nga war a liggéey julli timis teg si gaay door dem sa bureau waaye bu tisbaar jotagul nag moo leen boole bu timis jotagul moo leen boole loolu mën naa nekk waaye wal afdalu wal ahsan li ma jàpp ne moo gën te moo gën a rafet mooy bul boole ndax boole julli kuy tukki dañ ko may te yow tikkiwoo dañ laa forcé kon nooy def demal sa bureau nga liggéey bu waxtu julli jotee nga julli noo mënee fattaqullaha mastataatum ragal leen yàlla ni ma ne yonentu nee na idaa amartukum bi shay'in faatu minhu mastataatum su ma leen digalee dara defee leen ko ni ngeen ko mënee julli boo mënee taxaw ngay taxaw boo mënul taxaw dangay ngay toog boo mënul toog da ngay tëdd boo mënul lu ma yëngal sa bopp bi di junji julli gi da ngay yëngal sa bopp bi di junji julli gi boo demee sax ba mbir mi ragal gi tar loolu salaatu xawfi la gaa yi julli ragal la ñuy def tey bu fekkoon ne ay julli dañoo nekk ragal nañ ne buñ jullee ñu sàcc seen matériel yi seen bagage yi dañuy def salaatu xaw fi bu xeex amee ragal ga tar dañ naan la julli di daw di jàpp di songu di nangam xam naa danaa am ko ne waa oustaz julli gi dana xorom waa baax na yàlla nangu na ko lu xorom loolu yàlla ko santaane yow nag ci def sa xel mi rek jàpp ne allahu akbar rek mooy kabaar xamaa bi kon na sa xeex bi boole koog jàng mi su mbir yi nga ba jàng ma soo paree yeggaliwaat rukkoo ak sujjóot da nga koy junj kooku xel la jullee ba julli gisal man yow boo toogee sa sa sa fi nga toog man nga faa julli boo mënee jàkkaarloo xibla nag mooy li gën su ko defee ñaar yooyu daal mën ngoo tànn mooy boole julli wala nga julli xadara si taatika sa kemtulaay kattan moo gën nga bàyyi waxtu wa génn nga dem di fay julli kooku moom gis gisuma ko gisuma ko mbaaw daal gisuma fu mu fu mu jaadoo te waxtu julli moom bu jotee daal julli mi nga mënee waaye dégg nga laab nga man ngaa julli ni nga mënee nga sàgganee ba waxtu ba génn kooku daal moom ko borom wax dëgg wax wala xeluka aksaru salaati li adami tahaarati mhm. daal ba waxtu ba génn kooku mayewuñ ko aada moo gën a xam bi sawaab bi ci lay njub هذا هي الإسلام واصطنعت وتوفيقي إلا بالله ولي توكلت وإليه ونبو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته